le 22 avril nek date bu nga date bu marque histoire lutte sénégalaise parce que kiñ 15 ans d'invincibilité ya jël ndam ci kawam koku tay tok mu ne ngembam ban sentiment ak ban la ci am. waaw parce que tay bu. yahya ñepp xam nañ ne def ci nit ko ci kaw suuf. yalla dogal mu lu def champion des champions là, mhm. te moom lay ah est ngembem aussi am na ñoo xam mhm. mais aussi tamit mu parce que sommes âge bi wala affaire yi mhm. mais xëy tamit nit la nous rek sentir. mais nous ngi koy féliciter ci Nous def encourager nous ngi koy nous ah Il ji mu di dem di def wala yàlla na ko suñu borom jàppale mu gën a am lu gën a neex làmb ci. donc man maa ngi koy ñaanal yàlla. yàlla guddal fanam parce que dañ ko opéré genou bi. waaw yàlla guddal fanam. Mhm. ah ñaanal ko parce que tamit nekk na champion boo xamante ne genou boobu di ko métti yàlla na ko yàlla teg teggin. mu nekk lu sedd guy guy guy guy ci barke Seydina naa sallallahu alayhi wa sallam ci weeru safar bi nga xamante ne fa lañ nekk ñoo ngi koy ñaanal. lépp lu koy métti yàlla na ko yàlla teggil ci barke Seydina Muhammad te buy def jubileem xam naa ni kenn du la ca jiitu. non parce que man tey bu ma bëggee nekk roi des arènes ci moom la am xool ba nekk ko. kon lu mu xewlu lu ne rek war naa ci mën nekk te dama ciy nekk incha allah. loolu. waaw xam nga rëy na Alaaji Malick bu la ci kenn nax damay jëkk ci ñaari poñ rek ñaari tomb. Mhm. bu jëkk bi mooy gëm-gëm dafa am solo. Balla gay 2 day bëre ak euh, ndem si yàlla si Tyson Junior ñu daja kër Gaston. ñuy waxtaan ci combat bi. te booba Tyson Junior lay préparé. ñuy wax mu ne maaman Yékini te booba jëlagul Yékini dañoo toog tuuti sax Tapha Gueye yegg si bu dee moom dina fàttaliku. ñu laaj ko mu ne ñiy bëre dañuy gëm mbërug Yékini fàtte seen mën a fàtte ñoom seenu mën a bëre moo tax bi combat bi ma ne Yékini bu ko xeebee mën naa am problème ndax Balla Gaye yàgg na ko topp te xam na ko. Mhm. loolu la gëm ba yàlla def mu doon roi des arènes nga laaj ma nag ci Yaxya Joob Yékini muy ndaanaan boo xamante ne nii def li mu def du yomb man ngaa def xëy na li mu def ci arène du yomb waaye boole lutte yëpp bu nekk dégg ci daal yi jagle la yàllaa ko ko defal. Mhm. muy grand champion. fi mu bàyyi na xel nangu na ko 42 ans xaw ma 3 xaw xaw ma xaw ma xaw ma 42 ans la ñu wax wala 43 ans maanaam at la dese mais ñaari saison lay doon. Mhm. ak lim fi def joge ci defet ak blessure bayyi te dafa bayyi lamb dafa bayyi bëre mais wu lamb ndax structure bi mu jité ba bi mi mi ngi dox mais mu def lu am solo lo xamne dafa jar bayyi xel bu ñëk ba bawal sereru susi, ñom ñep ñëpp dañuy dajaloo ci benn écurie muy écurie séeréer momu dem drapeau chef de l'état ñak final contre Zallo ñu dénk ko kati mu ñew écurie dakaru ñu ne lutax demul ci manga mu ne gëm-gëm rek am solo foofa la toll ba dégg daal yi léegi écrit yi wala école de ne Sénégal yëpp am nay séeréer te ci moom la jógee. Mhm. alors li Balla wax. Mhm. dafa am solo. parce que adversité bu feros amoon na seen diggante. kàddu yu ñagas jógoon na seen diggante. bëre bu metti dox seen diggante. ndam lu rëy Balla am ko ci Yékini am ci defet bu rëy. tey mu toog fi mu toog am grandeur. reconnaître ni Yaxya li mu def ci làmb kenn dootu ko fi def reconnaître champion gi nga xam ne moom la Yaxya nekk champion féliciter ko ci li mu def ci carrière ba pare ñaanal ko wér ñaanal ko la muy dugg yàlla defal ko ci ndam ku nekkul un grand champion amuloo grandeur humaine doo def lu mel noonu kon dañuy jaajëfal Balla ci loolu mu waxal Yékini parce que yombul nag. mais mais ba mais mais Balla xanaa ñàkk koo xam. du mhm. dem nañ léegi këram biñ koy jëlee loo fa fekk ñu koy ran bu ko xool li muy wax ci adversaire yi xool bu rafet la yor. Mhm. ak it di dimbale ay mbokkam ak ñeneen jaam yi wërsëgam ne ci loxoom. Mhm. kon moom noonu la mel. parce que mbër ñaari mbubb la war a am ta dal na ko mbubam xar ci mbedd mi. mais bu bam gaynde ci biir géew ndax nit ñi ñu yaafus mhm. te loolu dal na balla lii rek lañu xaar ci mom ndax bitel bu ne la mu def la sañ bay xéñ mhm. alaaji malik nawon fawon gox bu ne la fa la fa sax mo fay meññe deug la loolu amna alors le retour de de, de Balla contre qui ah, loolu nak moy laaj bi Balla day dellu si son grand retour wara nek un grand événement mu wara a bëre ak un grand champion ñu bari am nañu combat ci jamono ji ñi wax ak yéen ndax bu ñu ne Bombardier ñu né am na Eumeu Sène mhm. bu ñu nee euh, ki nga xam ne tey moom moo euh, moom mooy Lac de moom moo war a bëre ak Modou Lo doonte moom du mhm. bëre ak Lac de donc Modou Lo mhm. aussi ci loo bi la bokk moom féete na boor tey ji ñu bëri dañu gis ni la combat bi ñëpp plébiscité mooy diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux moo sës moo ñor donte ñi ngi wax mook Tapha Tine waaye moo Gris daal la garan place yi di naane ataaye loo xam ci boobu parce que boobu nag gaa yi bëgg nañ ko mm. te nag yéen ñaar nag ku ci daanu de am nga problème kun ci waaw kun ci dalal ku ne waaw ah, waaw loolu lañ lay wax rek bu taxawee ah, ki yërëm mooy ki daanu ki yërëm mooy ki daanu waaw ndax Balla nee yabuma samay supporter bay demaat terre ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux nee na combat bi enjeu bi dafa rëy ndax maak Balla ku ci daanu mën nga faa jóge sa carrière yàqun nañ ñu fay lu ko jar ñu sëgg mhm. combat googu waaw wax nga komba xam nga nit euh, lii yoon rek nga wax ko ki nga xamante ne moom la bëgg ñaari adversaire yëpp loolu ñu bëgg. Mhm. da nga koy wax jaar ci digg bi. loolu mooy la Sénégal yi yëpp di xaar. Mhm. moom la amateur yi bëgg moom la supporter yi bëgg moom la Sénégal gën bëgg sax parce que loo xamante ne. ñaari ñoo xam ne mosuñu bëre la. Mhm. waaw yoon wi gudd na. <laughs> combat jànq la. boo xamante ne combat bu war a. un combat